Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Cheikh Mustafa santal dayob cant yaa te ka ngaayoo ci amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yum may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdallahi ax nii bi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 la sheikh Bamba non waa réew mi yàlla ma wooteloo ku dib dof na tok ne kel wa dew Mustafa serigne Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu delu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaak siqiya ju cuujëkku manala dañuy ñaan sa borom yagal nu ci bis bi rek lolo nu feta dajale nun ñep yàlla nu sama borom yàggal nu di fi teewe ay déwéni déwén ndax sëñ bi mënuñu koo fay li ñuy def lépp dañuy ñàq di fi ñëw rek waaye mënuñu koo fay noonu ci yàlla defal ndam ci ci nun ñi taalibe di ci barkeel. yaa ko jógee fii laa dëkk. waaw ah, ah, Touba la jullit yi bokki taalibe yi ngi leen di siyaare ci bisub Sëriñ Touba bu sell bu tedd bii nga xaye moo du Moustapha Mbacké moo ko jëlee woon jaareem andi ko fii bis bobu lañuy magal di ci jang alcorane di ci jàng xasaayit lépp lu ci waaye man ci lu bax mu diko ci def ndax amul lu bis bi, te bis bi lu reey la ci nun bis bu reey reey reey la ci nun ndax seigne Touba buñ ko wutone fi kon tay xamu fu ñu jëb àddina kon no ngi sante bu baax di gëreem bu baax Cheikh Modou mustapha mbacke mi nga xaye mo dox tank yoy bu andi ko fi ñing koy sante bu baax di santu njabootam yi nak mom mom rek lañ am lu leneen bis bi dong lañ am ci adina amul benen kon no ngi sante bu baax di jaajeufal kep ku fi teew rek no ngi lay sante di la gërëm waaw kër ne ku nek tanki nga doxa ba ñew fi ak ya ngay dala yëpp yalla nako yalla bindal aw yu ci barke borom tuba khadim Rasulullah jere gene jëf jere gene jëf man da daamaat la dekk waaw ci boori ngeelam bu eh, tay seigne Modou Moustapha fekkee ci ak dundam dara yow mi nga xamne tay waaw dafa dafa dafa dem rek nak ma ñew dafa dem rek ma gane àddina nag fekk ma ci dundam. tey la doon nettali li xam ne def na ko ba jëlee sëriñ bu mag bi fële ca njaarim andi ko fii. loo ci mën a déglu waaw ak njàmbaaram akuk dalam aku fitam moo ko may loolu ak njàmbaaram akuk dalam aku fitam moo ko may loolu waaw loolu moo ko may ndax xam ne ku ne sëriñ ku ne xam ne sëriñ Touba déggam ak tubaab yi lu jafe woon la. kon ya bi ko yalla mbaxé lolou may ko fit woowu ak njambar gogu bu mu andi wajuru mu tedd mu andi ko fi Touba ak njambaram ak fitam moo ko ko may waaw. ah contane rek nak kep ku dub julit rek bis bi tay sa bisa ndax lepp lu yoonu murit am rek ak lon am rek bis bi moñu ko jox Sëñ Touba moñu liggeyal liggéeyal danay ñepp nak la liggeyal ñepp rek ku dub julit rek ak lu lu julit ñepp rek am nañu bis bi am ci contante am nañ ci luñ ci war na lu way am rek sante ko Serigne Touba jeuf ah ah don seet bagage Serigne Touba yi rek wax ko soxna si naa Serigne Touba amul urus amul or Galam yi la am buma san galam yi galam yi rek lay ngab alxuraan la ci daan def ak tirim ak suñu suñu borom rek. ah nu fa yéene roy nak ci mom bay fi or bi ak mbasee yi ak lale armuwaal yi fas yéene jang alxuraan tay tey nga bi li nga xam ne moom la suñ Touba woon nu jéem a roy ci moom wasalaam. bisu Serigne Touba bii juróom gaal yi juróom gaal juróom be juróom ñaari gaal yi moo soxna joo sama waajur ci la yan woon gogom ngi ci biir sant yàlla rek ñaan nu fekk ka ay déwéni déwén te lu waaye waay di sàkku rek yal la ko Serigne Touba defal jërëjëf jërëjëf moo yen woon gaali Serigne Touba yi moo soxna Diop moo soxna Diop moo soxna Diop mi da këramadu moo ci ñeeg ñan woon gaali sëriñ Touba yi la gaalam a ngi fii aw turam a nga ca biir waaw gaal yi nag lañ kaada mooy gaal yi mu daa defi téere nee na buñ daa dem nee na dañ du nangu gaal yi laal suuf ku yenn ko sa morom da yenn juróom ñaar lañ ba mu yegg sa Touba dund na téeméeri at yu manqué ñeent waaw. waaw sama papa mooy sama waa juru góor waaw ma dëkk Touba nag Daaru Xudoos waaw. soxna Fama Cissé. ñu waaw wax ne euh, bagage Sëriñ Tuubaa la nekkoon. wallaay bagage Sëriñ Tuubaa nekk moo tax màggal gu jot day bu ma xëyee soo bu ma xëyee julli suba damay daal di ñëw siyaara si rek xam lépp moo ko waral waaw ñun sëñ Cheikh Aliou suñ kër gee ñu yore sëñ Cheikh Aliou ñoo ñu ko jox fii bu ma jógee fii maa ngi jëm si kër sëñ Cheikh Aliou gii fi laay fi laay kiyee fi laay dal ba màggal gi yeex ma ñibbi bis bii moom mënuñu see wax leen bis bi moom borom bis moom mënuñu koo fay mënuñu na koo fay fii mënuñu na koo fay fa nu jëm xanaa li si des kay dañ koy bàyyi ak yàlla borom mi nga xam ne mooy fay yàlla na ko fayal fayal ko mboolum jullit yàlla ci barke sëñ Baara billaay moo tax moo tax fi mu ne moo tax fi mu ne ku jóg rek yaa ngi koy wuti ndax téeméeri at yi dañ ciy bëgg a wasaar barke ñu fekke waat ko ay téeméeri bépp jullit ci kàttu suñu borom màggal gi moom macha allah yàlla nañ ko teewaat déwén ci barke sëñ Touba njaboot geeg bépp jullit ci barke sëñ Baara Mbàkke ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen itam jërëjëf ñu ngi lay siyaare Mbacke Balaye sa bi fu ñu mën a ne rek danañ ci ñëw balla ma ca ngay si ñi maam jaara ca Poroxaan xam nga ne yow sëñ Cheikh Mbacke barke borom Touba fu ñu mën a ne rek danañ xuus ñëw yal nañu yàlla taaf seen barke ci barkeb sëñ Cheikh Mbacke ci barkeb sëñ Fallou ci barkeb sëñ Bass Abdou Khadir yal nañu yàlla teewale na gën déwén ndax bés bi moom bés bu neex la bés bu sedd xol la bésum ñaanab alxuraan la yàlla nañ ko teewee na gën déwén te ngeen nit ngeen yàgg fi ci barkeb sëñ Abdou Khadir barkeb sëñ Modou sëñ Abdou Mbacke mi nga xam ne mooy suñu sëriñ ci barkeb sëñ Fallou waaw maa nga dëkk Mbacke kuudeeg Mbacke laa dëkk kuudeeg Ibra Faati Mbow man aata Mbow fu màggal ne rek danaa ñëw danaa ñëw teewe ko ci barke borom Tuuba yàlla nañ ko téye negan déen